nag lu ma bëgg a wax ak jigéen ñi ñu ngi jub nag tabaski gi yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina balante ak tey tey ñaan yàlla fekk ko ati at waaye yaakaar naa ne ku ci yëwwul ba léegi dootoo ci mën a yeewu dang-dang jeg dukk dukk ci ak fi réew mi bu la tabaski jaral yéen benn bis kees la waaye da jéggi dégg soxna Mbodia Mbaye waaye e eh, xamul mu mënta si porte man Mbodia góor gi yor te war a def te man kooku laa si supporté góor bu nay bi waaye góor gi nga xam ne bëgg naa def te amul et eh, jabaram dafa comprendre il faut ngeen di comprendre góor ñi te wàññi bëgg-bëgg yi wàññi leen bëgg-bëgg yi ci ñi te def ndànk ndax ñun lu ñëw doo ko ña ngay tabaski ña ngay korite ña ngay màggal un ña ngi dugg dang dang dang dang lu tikk ñu yaru ko war koo oyofal ña ngi ko yaru dajji dajji dajji dajji dajji dëgg la nag ndax suñu feet la ñu yor mais doole yemul de doole yamul te ku nekk li nga mën rek nga mën a def nee nañ baax ak bëgg a baax xool boo tëj ma nga fa ku sa yoon tey jii sa kër dam cay def la la saf rey xar ma la neex togg la la neex sañse la la neex fi laa le sànneew amatu droit ndax jur it la tàggat nga bëggal moo ëpp solo ndax suur effectivement te xamara di ko fekkee de wanam dé mais ci ko mën il faut def dànk te góor ñi da leen waxtaan ak jigéen la mu laa muñal dëgg dëgg dëgg day xam fan nga toll jigéen bu xamul sa situation mënu yërëm jigéen bu la xamul dara mënu laa jigéen ñi di leen wax seen poos fu mu toll ndax jeeg kumpa koy rey ci borom këram borom këram a ngi taqale mais xamulu ko dara defar ay fukki ci juróom nga defee ni tey sa borom kër yoon ak naa ngi ci biiram fekk yorul loolu mais dafa waxtaanul la jabaram dafa waxtaanul ak jabaram soo waxtaanee sa jabar mu xam sa poos dina leen mën a yërëm te dina xam fan la war a mën a dundee tabaski gi waaye tey ji nga yor li nga yor ne pat ak moom sa jabar xam na am na sa jabar xamul na amoo da leen communiqué ak jigéen ñi ñuy am seen yërmande gémmañ wax leneen góor ñi yërëm leen jigéen ñi ta jigéen ñi tamit ngeen di wàññi charge yi nag ndànk ndànk ndànk méttiwut romb leen jëm déwén bii saa yu tabaskee bari ko këlëb anweer euh, semaine ba ca topp sosaat nañ ko mu jëmaat déwén ngay ñaan yàlla fekke ko kon teeg bu ci teggi rek romb ren jëm déwén war nga cee mën a jàppale sa borom kër ci kaw nag nga xam situation borom kër gi yor ki yorul te bëgg a moo gën a metti boo sa borom kër am na yéene def mais munul dooleem yamul te xar la na lew nga ko da nga liggéey ko rek te ñàkk ndax nit rey na kuy mun a toll lu ko neex te amul tabaski yow nga rey sa xar mu ndaw am tabaski parce que fa nga ko jële xam nga ko waaye ka rey xar mu rëy mais foo ko xam na ko kon yenn fitna yi ci événement yi nañ ci yeewu te yaakaar naa dinañ ci yeewu nag ku ci teggati sa romb leen jëm déwén bii te sa jëkkër nga xam situation amul doole jàppale ko ci njaboot ci wàññiwuñu dara amul jigéen ñuy jàppale borom këram ba rëccu ko ku jàppale sa borom kër jaw doom dina la yor barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke waaye dégg leen boo ja bàyyi wax yi ci dimbali sa borom kër ci situation doom dalay yor donc il faut ngeen di xam tamit li ngeen di dund ak seen i kër waaye tey nga def tey tey tey ma jox la cent mille franc nga ne ma ko ma jox la deux cent mille nga ne ma bëgguma deux cent mille bi ma war a takk jasneer war a sol yaa ngi la ma war a xotti sama yaay samay doom yaa ngi dégg dëgg la effectivement waaye sa jëkkër amul la day rey boppam sa jëkkër bu ko amul day xaru wala day dee njaboote mii ta lekk comme ñëpp te toog am na ñu am na ñuy dem di peese yàpp pour jox seen doom ñu lekk am ñoo xam ne ginaar la ñuy jël raxas ba mu set lalu seen biir kër lekk am ñoo xam bu leen tibbalu jox leen du ñu lekk kon doole lu waay di am du ko xeeb waaye nga ne siiwateeku rek te am gudd fan dang dang ji ñuy nekk di ci gis jeeg bu dang dang xotti ñaw la yenn jabar boo xam ne bu tabaskee dina ci jàmm te ba pare bu bees doo ko tala sol da ngay daal tëddi ñun jigéen ci boppam ñu ñoo am problème ñun ci boppam ñu ñoo solo suñu bopp néew ñu siiw ñee ngay sol di sinap di photo woo ko wëndeelu eh sinapal ba yëg ci kaw asamaan si man boo jëmbaay aw ma lu ma sol damay tëddi aw ma lu ma sol yow mi am li nga sol na ràpp ak jàmm ñuy julli ji nag nañ jëm ci ni julli ji kii mi ngi dëpp Sénégal ñuy julli ji nag mu réglé julli ko ci heure temps te bàyyi defante am na borom kër yoo xam ne instant bii ñu ngi ci nen toog ndax lan seeni soxnaa war a daje ca dëkk ba war a julli ca dëkk ba war a dem nag dafante gi nag jas deer yaag maabo yi di dëkk ba eh, yow jeeg bi nga xamante yaa ne ca àll ca dëkk ba bu ko jeeg bi nekk Ndakaaru Njaay gi di liggéey di ñàkk munoo leen a yam boo jàmbaay ma ne ca àll ba di sëy mën na yam ak jeeg bi nga xam tarkal la mi ngi fii di liggéey di faraat fukkam ak juróomam su ko neexee xotti ñëwal jëkkëram ni def seen maabo nga diw saw yaram ba mu di tax war a julli ci jeeg ba ko fekk nag yow bu diiñee danga naan tekk nit da ngay diiñ man meññeeruwuma ma defantewuma am na ñoo xam julli gi ci gu baree baree bare ña ngi ko yaa ngi jàpp defante waaye yaakaar naa ku ci man dëgg diiñ te bëgg jàmm dinaa jël samay samay oto si baax xottu ko bu fekkee sama mag laa fa fekkee war a wujjeeg moom ma xottu ko yóbbaale soo ko mënu nga yóbbu jàmm nekku ka frère waaye sëy yu bari mi ngi jaare am problème ci julli ji gii julli gii mi ngi jaare sëy yu bari di yëngu ba góor ñi sax julli gi di dootuñu ca bëgg dara jënd seen ñaari xar jox la mu jullee Dakar ñu jullee ji dëkk ba moo leen di gënal ku nekk xam nañ julli dëkk ba ku dëkk dëkk ba ku ne bu tabaski jotee dëkk ba ngay xalaat kon bàyyi leen defante bi te yërëm góor ñi te jàppale góor ñi te wàññi bëgg-bëgg yi nag jigéen ñi ci bari nag seeni poos la ñuy demee bu ko defee nag boo ca bàyyi ba ci ko defal liggéeyu ca kanam ko di rey boppam nag moom waaw waaw yaa ngi jël nogay njaay yaa ngi dégg xottil ko defal ko lii xottil ay doomam te fekk ne kanam maa ngi ni woo ma sox lu ma sol fekk sa jëkkër xottiwu ko boo jaa sagal boppam boo jaa defal boppam boo jaa liggéey solal solu solal ay doomam yóbbu teraangaam defal jëkkëram am na ci droit ndax ci poosam la jógee kon yow jebbee pour rey sa bopp amoo ko mënoo ko solo li nga am sànni ko moom te andi jàmm def seen lakk yu baax def seen marina yi baax yu saf sàpp ak moutarde ak poobar yaa ngi def seen si yu baax def seen i xattum sànni ko ak furée mu toll ko defee nag ngeen daal def seen marina yi baax nag daal di silaan ak sànneeku nag fekk def ngeen seen i si dend ak seen i alaaji féex mi di leen upp mu ngi noonu loo jënd jàmm jàmm ko gën kon nag dëriñ ci góorgóorlu te bàyyi defante mais am na ñoo xam te dañu julli ba ca ngoon nga kër ga mel ni dëj ja kee ngay fuuj fu ñu jaar ne kee tëj buntam kee yéeg sa kaw terrasse ba kee bënn sàkket ba kee xar suuf sa dugub sa lu ko fi jaar lan moo ko fi jaar defante jaru ko fi man boo ma andilee defante sax man la ci kër gi barki Seexu Xadim du ma defanteeg yow tekk laay def tii am fu laa fayre sama bopp di kaf di ree lakk samay samay xol jàkkaarloo sama borom kër ñuy felaal doon benn te am na jeeg yoo xamante ne ñu fi doon siis macha ba set ci kër te seen tabaski day neex nga ngay pelloo di waxtaan di kaf di ree waaye nag defante bi ci biir tabaski gi gisuma la ko fi jaar àdduna jeex na adduna jeex na ku julli reen xamara di ko fekki déwénam déet kon la népp di rafet góor ñu ci mën di doon bu dee ëllu sax jaru ko dal leen teg ji ndànk ndànk yàlla nañ ko teew ay déwéni déwén te dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn nga alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu alay déwénati